mandel <laughs> <laughs> la. xam nga yow da ngay saboté rek. non saboté ma càq-càq laa ko jox mu indi la yow de. waaye càq-càq boobu ban heure lay départ ak ban heure lay agsi. non ça dépend ci ça dépend ci yow rek parce que daf lay woo su la woolee yow di nga ko wax ban heure mu amul problème kon la après su ma coupé dinaa jël sa kii jox ko càq-càq bi mu woo mais ci loo nekk nag. sant alhamdulilah dox. ñoo ngi sant yàlla bu baax baax. naka waa Sénégal ñëpp ci jàmm ñëpp ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. maa ngi nuyu téléspect internet yi télé Sénégal yëpp rek. Mhm. di leen jaajëfal. Mhm. di encore une fois quoi. ndax mhm. xam a maasawu. Ah, nag. Euh, benn wax su Biram Souleye mooy doomu aadama doomu aadama nit ñi nekk bu fekkoon benn bu dañ lay tëj ci kaso bi waa APR jeex nañ yàgg mm-hmm. commencé ko seen jiit quoi chaque jour Macky Sall wax fi loo xamante ne mooy lool ay ministre ay DG ay député ay maire ñoom ñëpp dañuy juum dèjà li mu wax dem ba dafa dafa dafa juum dafa dafa dafa dafa xaw ëpp Mhm. donte c'est possible capable Macky Sall capable na raw loolu parce que def na ko ay maintes fois ci ay nit yoo xamante ne ni moo leen éliminé physiquement mhm. mais nekkul ne moom moo ko waroon wax quoi ak mhm. posture bu mu yor effectivement waru waru ko woon wax quoi donte donte li muy wax ñun ñëpp xam nañ ko parce que bu nte ne ni yow diggante xàcc ak dóor rek ñun xam nañ ci xalaatu Macky Sall donc loolu noonu bu fekkee dafa taxaw euh, caméra yi jël ko ñëpp ñëw toog Mhm. média national beeg international bi yëpp ñëw. Mhm. kon kon ça ça veut dire que euh, affaire bi àdduna bi yëpp a koy suivre. Mhm. kon bu waxee loolu rek ça veut dire que euh, lu lu ëpp la wax ko donc comme jéggalu na encore une fois donc nañ ko jéggal rek Macky Sall fi mu toll li ma koy ñaan mooy na gën a apaiser rek donte ñun xam nañu stratégie yu muy teg yëpp mais bon euh, loolu comme c'est après la donc li nga xamante ne moo xew ci loolu rek la ñuy mën a àddu ànd tànnaa quoi. Mhm. voilà donc euh, bu leen weeso damay damay dama am loo xamante ne dama koy ñaawlu rek muy euh, loo xamante ne ni mu ngi xew ci ci ci prison yi ci kaso yi mhm. ñu ngi fa tëj ay sénégalais lañ bu ñuy duggoo ci prison bi seen carte d'identité nationale bu Sénégal bi moom la ñu déposé ci porte bi fi garde pénitentiaire yi tee ko kon mhm. ñooñu ay sénégalais duñu ay étranger duñu ay duñu ay yeneen yeneen ñu jóge faneen te duñu ay mala tamit Mhm. dañ leen traité comme ni ñuy traité nit ñi parce que en ngi ne ci kaso bi ñëpp amaana am na suñoo xamante ne nii ay président de la république du Sénégal dañu war a doon ëllëg am na ñu si nar a nekk ay ministre am ñu si a nekk ay député kon na na defaat euh, xelam ci encore une fois ñi ne ci kaso bi ay sénégalais lañ te boo liggéey ñi dañ suñ borom da leen di laaj da koy laaj comme nan la leen woon quoi mhm. mais am na suñoo xamante ne ni ñu ngi leen am na ñoo xamante ne seen bokk mënuñ leen di gis am na ñoo xam ne bañ leen tëjee ba léegi amuñ benn piste seen avocat sax mën leen gis loolu dañ koy ñaawlu bu baax droit de l'homme bu fekkee ñu ngi ñuy dégg si côté boobu mhm. nañ ci nañ ci nañ nañ ci dox nañ ci veillé nañ ci dox bu baax a baax a baax naa ci xamante ne nii bañ leen tëjee ba léegi seen avocat mën leen gis bañ leen mënuñ leen yóbbu lekk mënuñoo xam sax fan lañ leen tëj ci Sénégal mhm. parce que bu fekkee dañ ñu ne ñu tëj ci prison yi prison yi dafa fees ba am na ñoo xam ne dañ leen tëj ci ay hangar xam nga kuñ te ci ANCAR avo doon nangu avocat am dem di ko gis. Mhm. donc ñun xam nañ ne ni kaso yi dafa fees nañ leen bàyyi ñu génn. defuñ mhm. dara. Mhm. ay victime ay victime lañ ñoo xamante ne nii dañ leen ay prisonniers politique lañ lañ donc nañu bàyyiwaat xel ci loolu quoi te xam ne ñun ay sénégalais lañ mënuñoo mënu koo xëccoo baax a baax. d'accord merci merci merci merci ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax sunu xarit Oscar euh, Sierra Idi di ñu gën nga xam ci tur Oscar Sierra ñoo ngi koy jaajëfal Binta Sarr maa ngi lay jaajëfal yaak euh, Ansou Conté euh, ak Yaya Badji maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 Diallo. waaw maa waa Diallo Diallo. waaw. waa Diallo Diallo. bien. Diallo dama laa ñaan rek 3 minutes laa la ñaan ndax temps moom daanaka jeex na. non du ko mat du ko mat dafa am lu ma leen Sénégal ci bi télé bi dafa nekk télé a ngi mhm. boo waxee daal dugal lu xam ko da nga koy leer ba mu leer naññ. Mhm. parce que Ousmane Sonko waa ji dafa dafa wax pare mais dafa wax liñ liñ liñ condamné Sonko dafa wax pare waxul liñ condamné Ousmane Sonko Ousmane ni ko. yow comme nga violon mais daan nga tëdd xale bi na xale bi nga koy nax di tëdd ak moom amagul 21 ans booba booba majeuragul ko doon nax loolu loolu moo tax waaj wax ko pour mu leeral ko Ousmane Sonko dañ dañ ko jàppee loolu moo raw bi yor mi ngi mel ni mu fekk doom yi sa doom ak sunu doom yi mu leen tëddee noonu la mel xale yu ndaw yu xam ne amaguñu majeur majeur noonu la doon tëddee loolu lañ ko loolu lañ ko condamné deux ans te juge bi koo dimbali ah dama wax la ko juge bi da koo dimbali moo lay wan ne Sénégal am nañu yërmande mais normalement Ousmane Sonko li mu def moo raw bi yor ndax ay xale yoo xam majeur guñu dafa guñu dara la ko gis bi ci jàppe lan moo tax man li man li gis wax laa de man li hmm. yoon wax laa wax beneen bi moom Mame Mbaye Niang la mu wax lu xam ne dina def Mame Mbaye Niang dafa taaj nu nunu ko indi pour indi benn problème nu jàpp tëkk six mois loolu la di d'accord ñun wax dëgg yàlla li ñu wax dafa leer naañ hmm. nii te Macky Sall mi ñuy bañ Macky Sall ñëpp xam ne amoon na droit def troisième mandat gis nit ñi nañuy wax dëgg te yàlla ko parce wax dëgg yàlla gàcce gala Macky Sall nañ ko remercier rek te gàcce ko. te xam ne seen waa ji nu yaakaar nañ dem wuti keneen. d' merci Diallo merci mais bëgg nit ki booy weet ngay wax dëgg te yàlla tax. d' merci merci okay, merci ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 su nekkee am na keneen ko bëgg a bokk ci waxtaan wi jël ko salaamaaleykum. allo allo salaamaaleykum. soxna si maa ngi nuyu bu baax di nuyu ñëpp nag di la euh, ziar c'est la première fois man sénégalais la boo xam ne damay seetaan information yi waaye dafa am loo xam ne dama la ko bëgg a wax baaxee la ko en tant que frère en tant que mbokkum jullit man accusé wu ma kenn waxuma kenn dara waaye lu rafet laa xam. Mhm. waa ji nga xam ne dafay woote di wër inter di internet yi di woote te nekk Italie ñu bokk nekk fii. làmminam ñaaw na ba fu ñaaw yam dama bëgg dama bëgg sama frère dama bëgg lépp loo xam ne buñ la woowee jëmale ko ci njiitu réew mi mu ñaaw nga ni lii bu fi kenn waxee ndax dañ may jël si sëriñ bi nga ci boole bu nu waxee doomu jàmb doo xam ni wax ju ñaaw la na nga kàddu bi ndax li tax ma wax la lii mooy wax ji ñaaw na ba fu ñaaw yem dégg nga te ñun dañ leen di déglu te comme yéen da di liggéey bëggunu seen liggéey yàqu ndax dañu bëgg ngeen avancé ñun ñoo leen di seetaan te képp koo xam ne bañ nga lu bon bañ lu ñaaw da ngay mujj désabonné looloo tax ma di la wax li ma lay wax lépp loo xam ne dafa ñaaw buñ ko jëmalee ci gouvernement bi ngeen taxaw ni lii buñ ko fi waxee ndax dañ nuy woo suñ ko waxee Ousmane Sonko na ngeen ni lii buñ ko fi waxee ndax doon nuy woo gis nga lii mooy dëgg waaye buñ ko dee wax wax ju ñaaw ngeen ubbi seen internet kooku wax lu ka neex ba biiram fees addina bi yëpp di ko déglu am na ñoo xam ne lii buñ ko naree di ko déglu ñu désabonné moo leen ko gënal lii nag laa ni naa la ko conseillé yow ak sa yeneen i nawle mhm. ndax na di boole yëpp mu nekk benn ndax mhm. kii njiitu réew la waaye kii tamit boroom kër la mhm. te loo loo sol te jotu la bu ko nattal sa moroom effectivement loo xam ni loo xam ni suñ ko waxee sa mag wala ñu wax ko sa papa duma ni sax bàyyi ndax dafay nekk loo xam ne ñooñu am na noo xam ne duñ ko ko déggee buñ ko waxee sa koo xam ne dafa tax ci yow du la neex su taxawee foofu ngeen ubbi seen antenne bi kii di wax fu wax gën a ñaawe ak keneen ku mel mel na moom addina bi yëpp di leen déglu gis nga nit ñi bu ñu demee ba mënuñu leen déglu dañuy dootu mhm. dootuñu leen déglu te mhm. bëggalul leen loolu mhm. leen loolu gis nga Sénégal boo gisee mu mel tey ñi mu mel yëf yi du politique rek wax ju ñaaw ji jëf ju ñaaw ji jëfin ju ñaaw ji moo tax yàlla wàcce li mu wàcce ci Sénégal gi lii nag pour mu dañ yéen rek yéen a ñu ci mën a dimbali ndax yéen ay ubbi seen antenne yi nit ñi di leen déglu. Mhm. gis nga kii bu mu pare dem ci beneen wax lu gën a ñaaw wax fu kàddu gën a ñaawee moom lay génn te nam gis a ngi ci bis yi mhm. lu ko yebbu sóoraale loolu ndax kii mhm. ñuy wax wax ju ñaaw ji. duma politique si politique ma. ëllëg mën na jiite réew mi. te ah, am na yoo xam ni rafetul waaye dama kay wax ngir baaxe leen yéen ñu yore seen internet est-ce que xam ngeen ne télé yi dañ leena a dañ leen a off kenn déglootu leen mhm. yéen la déglu bis bu ngeen demee ba mel ne ñoom kenn dootu leen déglu ndax lii ngeen am te ci ngeen di tedde effectivement li ñuy bañ li gouvernement bi di bañ bañal leen ko doomu jaamu ndax moom amul fu mu waxee mhm. yéen a ko mën a dimbali yéen ka mën a dimbali yéen a mën a dimbali. Mm-hmm. lii nag sama wax ji na nga baa bàyyi xel. merci sa morom nga ci bàyyi xel. merci lii laa leen di wax. merci merci te ngeen dimbali nit ñi jàpp bu bari bi yéen a ci mën a dimbali. effectivement nanu te jàpp bi ñu bañ di encouragé loolu. Mm-hmm. diw lu tax mu wax lii liw lu tax mu wax laa day tax kiy jàppee di jàppee ñaawlu leen ka ndax mu arrêté.